ku ci nekk ci ñaar ñooñu am na dëgg parce que jaaxle mooy que ni xel yëpp dañ dem ci mars ñëpp ragal mu dellusi si nous ne pouvons pas ne penser Mais nous ne pouvons pas exclure une réédition de mars. Et je le dis clairement en français, pour que nul n'en ignore et qu'on comprenne. ne saurions, nous ne pourrions exclure une réédition de mars. du lu ñu bëgg du lu ñu ñaan du ñu lu njort du lu ñuy dox du lu ñuy sabab mais gor la ñu wa moomul di toroxal ak gundoxataal góor goo bëgg a def yenn rek mu fippu teg ba am am nu mu wane. loolu moo tax ma ni une réédition de mars mën na ne mais du lu kenn ñaan du lu kenn bëgg du lu kenn xalaat mais mën na ne beneen bi nit ñi tiit tiit parce que su fi yenn yi amee. kenn xamul ci kan lay dal ci kan lay metti mais képp ku mu dal ci yow képp ku mu nekk ci yow dana metti ci ñun ñëpp moo tax ñu bari tiit yaakaar ne walla gëm ni war nañ mën fexe ba loolu dootu fi am cette ambivalence de mes propos signifie quoi que Yewwi Askan Wi et dans une posture de responsabilité nu allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nu l'avons fait depuis toujours dans cette épreuve. Et nous sommes prêts à tout assumer et assumer toutes nos responsabilités. Mais li ñu gëm te bëgg ko mooy su fekkee yoon rek la ñuy doxal amuñu tiit tiitaange amuñu njàqare ci fii ñu jëm. suñ ci bëggee laxas jaan nag dana mel neneen dana deme neneen dana nekk neneen je veux vraiment être très clair pour que tout le monde sache que am na lu kenn dootul nangu dans ce pays on ne peut pas accepter que dans ce pays qu'un pouvoir puisse à chaque fois choisir ce contre qui ou ce avec qui il doit compétir ou se battre parce que nag nañ ko wax ali kale ji mooy coow lii lépp mooy comment liquider un adversaire politique loolu mooy dëgg bi quelque que soit la forme que cela prend quels que soient les moyens qui sont utilisés la finalité elle unique elle la te loolu du fi amee incha allah looloo waral tey ñu daje ak yéen fas yéene waxtaan ak askan wi responsable yi nar wax. ci turu Yewwi Askan Wi ku nekk dana wax ak xolam mais dana wax ak xelam parce qu'en définitive la seule chose qui nous importe c'est la paix dans ce pays c'est la sécurité dans ce pays c'est la sureté pour les citoyens mais kooku duñ ko waxe dañ koy jëfe ku nekk ci ñun war na ko dox war na ko wax mais am na lu kenn dul nangu loolu laa bëggoon duggee ci waxtaan wi wax ni Ousmane Sonko est très serein très il n'a aucun problème avec ce qui va se passer demain il est dans des dispositions de citoyens et de responsables et de justiciables mais il assumera toutes ses responsabilités si c'était nécessaire donc ma jox parole bi Cheikh Tidiane Dieye mu jël benn pàcc parce que dañu séddoo waxtaan wi man dama doon introduire rek donc Habib Sy mooy tey suñu célébé yoon mais célébé buy féete ginnaaw parce que mooy tëj waxtaan wi alors donc ma jox Cheikh Tidiane Dieye mu ubbi waxtaan wi comme ça